juróom fukk ak juróom ñeent yonent yàlla malasi ak mujjug kóllëre gu jëkk gi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub bu yàgg ba léegi ñu ngi doon jàng ci xaaj bu jëkk bi ci mbind mu sell xaaj boobu mu ngi tudd kóllëre gu jëkk gi ci français ñu koy woowe ancien testament waaye ak nu ñu ko mën a li nu war a xam mooy xaaj bu jëkk boobu moo ëmb tawreet saboor ak téere yonent yi ni nu ko gise woon yàlla jëfandikoo woon na lu ëpp fanweeri yonent diirub junni at ak juróomi téeméer ngir ñu bind téereb kóllëre gu jëkk gi tey jii nag agsi nanu ci émission bu am solo lool ndaxte danu fas yéene àggale sunu tukki ci xaaj bu jëkk bi ci mbind mu sell waaye bala nuy jàng ci saar wi ub téereb kóllëre gu jëkk gi danu bëggoon a waxtaan tuuti ci li nu taataanagum ci téere bu sell bi ca ndoorte la ba fi tey danuy fexe tënk xibaaru yonent yépp ci ñetti xalaat yu am maana ci lu gàtt waareb yonent yàlla yu jëkk yaa ngi nii benn yàlla ku sell la te faaw mu àtte bépp bàkkaar ñaar doomu aadama yépp dañu réer te sànku ci biir bàkkaar ñett yàlla fasoon na yéene wàcce ab ramukat bu sell bu naroona a gàddul doomi aadama seen mbugaluk bàkkaar loolu mooy ñetti dëgg yi yonent yàlla yépp doon waare ci tënk nanu bamtuwaat ñetti tomb yooyule tomb bu jëkk bi mooy yàlla ku sell la ñaareel bi nit dafa sella di te amul menn pexe ngir musal boppam ci dooley seytaane ak bàkkaar ñetteelu tomb bi mooy yàlla am na pexe ngir sellal bàkkaarkat yi te musal leen ci àtte ba te pexe moo ngi ci almasi bi naroon a ñëw yow mi déglu tey ndax jàpp nga bu baax ñetti dëgg yooyu ndax dëgg yooyu jàpp nañu la ndax gis nga ni yàlla selle ndax ràññee nga ni say bàkkaar rëye ci bëti ki la war a àtte ndax xam nga ne yàlla am na pexe ngir sellal la ci say bàkkaar ci lu wóor yàlla ku sell la te nit selladi gisoon nanu ñaari dëgg yooyu ay yooni yoon ci sunuy gëstu ci mbind mu sell mi sellaayu yàlla taxoon mu sàkk safara sudul fay mukk ngir seytaane ak képp ku ko topp sellaayu yàlla taxoon mu dàq aadama ak awa tollu àjjana bés ba ñu lekkee ca garab ga ñu leen tere woon sellaayu yàlla taxoon mu sant doome aadama ñu rendi ay mala te lakk leen ni sarax suy muur bàkkaar sellaayama taxoon it yàlla nanguwul saraxu kayin sellaayu yàlla taxoon mu far bàkkaari jamonoy nooyin ak mbëndum ndox sellaayu yàlla taxoon mu tawloo safara ci kaw waa sodom ñoom ñi doon bànneexu ci bàkkaar te it selaaya ma taxoon yàlla sàkk bés bu muy àtte àddina ci njub déglu leen li yonent yàlla yi bind ci selaayu yàlla ak sell dikk nit ñu ne yow borom bi yaay aji sax ji say bët dañoo sell ba mënuloo xoolu bon te mënuloo dékku bàkkaar waaye nun ni ku am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yu jub yépp xasaw ni sagar yu tilim kon nag bu fekkee ne nii la yàlla selle te nit taqe noonu sobe kan moo mën a mucc naka la doomu aadama mën a texe laaxira ci jataayu yàlla ju sell ji nan lanu mën a mucc ci safara su dul fay mukk tontu laaj boobu mooy ñetteelu tomb ci xibaaru yonent yi ndax te gannaaw ba yonent yàlla yi waare ni yàlla selle ak ni doomi aadama sellade dañuy gis ni ñu doon yëgle it ne yàlla moom ci boppam am na pexe ngir sellal doomi aadama ci seeni bàkkaar loolu mooy waareb yonent yi ci tënk loolu mooy xibaaru téereb kóllëre gu jëkk gi di ancien testament yàlla dige woon na yoon ni ci àddina ramukat bu jub bi naroon a dee ci palaasu doomu aadama yu jubadi yi ngir jot képp ku ko gëm loolu moo doon pexe mi yàlla rabatoon ngir musal bàkkaarkat yi ci pexe moomu rekk la yàlla mën a baale bàkkaarkat yi te ba tey dëkk ci sellaayam kon ngir jëme kanam pexeem ba wàcce musalkat bi gisoon nanu ni yàlla woowe woon ibrahima ngir def ci moom xeet wu bees wu yonent yàlla yi ak euh, musalkatu àddina si naroon a soqi ko loolo taxoon yàlla wax ibrahima ne ko dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp ñu barkeelu ci yow naka noonu ibrahima jur isaaxa ci màggetam te isaaxa jur yanqoba yanqoba jur fukki doom yu góor ak ñaar ñi sos xeetu israel noonu gis nanu ne bi yàlla dee ibrahima dafa doon jëme kanam pexeem ngir yónni ramukat bi ci àddina ndaxte ci xeetu israel la almasi bi naroon a soqi ko gannaaw loolu gisoon nanu ni doomi israel toxoo réewum kanaan sanc ca misira nekk fa ay jaam diiru ñeenti téeméeri at waaye yàlla fàttewul woon askanu ibrahima di bànni israel yàlla woowoon na musa ngir mu goreel bànni israel delloowaat leen ci réew mi leen yàlla digoon ni dina ko jox seen maam ibrahima bu yàgg te it ci yonenti yàlla musa la yàlla jaarale téere bi ñuy wax tawret mu nekk fondement lépp li yàlla façon xam xamle ci jamono yi ci topp naka noonu gisoon nanu ni yàlla yónnee woon bànni israel ay yonent yu bare wante ñi ëpp ci yawut ya faale wu ñu woon waxu yonent yi waaye ndax ñàkk kóllëreg bànni israel mënoon na fanq kóllëreg yàlla ak pexe mi mu rabatoon ngir yónni almasi bi ci àddina mukk noonu gisoon nanu ni yàlla tànne woon daawuda mu nekk buuru israel ak yonent bi naroona na bind lu ëpp ci taalif yi neex te xóot yi nekk ci téereb saboor ci saboor yonent yàlla daawuda bindoon na lu bare ci mbirum almasi bi ak ni doomi aadama naroon a fitnaale ba daaj ko sax ci bant waaye daawuda bindoon na it ci saboor ne gannaaw bu almasi bi tuuree deretam ni sarax suy dindi bàkkaar dina noot dee dekki ca bàmmeel ba waaye ci sunu gëstu gisoon nanu itam ne du musa ak daawuda kese bindoon ci mbirum almasi bi waaye yonenti yàlla yépp yëgle nañu dikkam ci misaal déggoon nanu ni yonenti yàlla esayi yëgle woon ni almasi bi naroon a juddoo ni nga xam ne kenn mësu ko juddoo mu ne janq bu mësula sëy dina ëmb jur doom góor tudde ko emmanuel liy tekki yàlla ganesi nanu moom la yonent yàlla esayi bindoon juróom ñaari téeméeri at laata almasi bi di ganesi àddina amoon na it beneen yonent bu bokkoon jamono ak esayi mu ngi tudd mise yàlla xamaloon na mise ci ban dëkk la almasi bi waroon a juddoo déglu leen bu baax li yonent yàlla mise bindoon ci téereb mise saar juróom mu ne betleyem efrata yow mi tuuti ba bokkoo ci teeru yi ci diiwaanu yude ci yow laay feeñale kilifa gi yilif bànni israel te cosaanam féete ca bési njalbeen ga fekk dara amagul noonu la mise doon yëgle ni almasi bi waroon a juddoo ci dëkku betleyem di dëkku buur bi daawuda te fileg ay njàng yu néew rekk nu gis ni yàlla amale woon loolu lépp ndaxte ci dëkku betleyem la almasi bi juddoo ni ko yàlla yégle woon bu yàgg jaarale ko ci yonentam mise ah mbokki déglukat yi ci lu wóor yàlla waajoon na dikku musalkatu àddina si bu baax a baax amuñu jotu jàng waxi yonent yépp yi jëm ci almasi bi ndaxte am na ci lu ëpp ñetti téeméeri wax yu yonent yi bindoon ci mbirum dikku almasi bi ci àddina xëy na yaa ngi laaj waaw lu tax yàlla soloon ci xeli yonent yi wax yooyu yépp ci mbirum almasi bi laata muy gane ci àddina lenn rekk ko waraloon yàlla dafa yonent yi ñu bind lu bare bare ci mbirum almasi bi bala loolu di ñëw ngir bu lépp agsee nga mën a xam xel ci lu wóor kii mooy musalkat bi yàlla yónni yàlla bëggul kenn nax la yàlla dafa bëgg nga xam kan mooy almasi bi te noonu dinga ko mën a gëm topp ko loolu moo tax mu jox nu téere bu wér bi nuy tudde kóllëre gu jëkk gi ngir ràññee luy dëgg gi ak lu dul dëgg gi léegi nag ngir àggale sunu tukki ci téereb kóllëre gu jëkk gi danu bëggoon a jàng tuuti ci téereb malasi di téere bu mujj e, bi nekk ci kóllëre gu jëkk gi waxi yonent yàlla malasi am ñu maanaa lool ci nun ndaxte ñooy wax yi yàlla mujjoon wàcceel doomi aadama laata almasi bi gane ci àddina ñeenti téeméeri at rekk ci desoon laata ramukat bi waroon a juddu déglu leen li yonent yàlla malaasi bindoon ci saar wu mujj bi nekk ci kóllëre gu jëkk gi mu ne aji sax ji mën lépp nee na maa ngi nii di yónni sama ndaw dina xàll yoon wi fi sama kanam te dina ne parax dugg ci màggalukaayam boroom bi ngeen doon seet te ndawul kóllëre gi ngeen doon séentu mu ngi ñëw ndaxte may aji sax ji duma soppiku naka noonu yéen ñi wormaal sama tur jantub njub dina leen fenkal tey ceñeeram dinañu indi wér noonu la yonent yàlla mala ci yégle woon ni yàlla fasoon yéene yónni benn yonent ci kanamu almasi bi ngir xàll yoonam ndax xam nga kooku moo doon ban yonent ci njàng mi di ñëw dinanu gis ne yonent bi naroon a xàll yoonu almasi bi mooy yonent yàlla yaxya wante am na leneen lu nu war a gis ci aaya yi ndaxte malasi bindoon na it ne aji sax ji mën lépp nee na ndawul kóllëre gi ngeen doon séentu mu gi ñëw ndaxte maay aji sax ji duma soppeeku ci kàddu yooyu la yàlla doon yëgle ni almasi bi naroon a indee kóllëre gu bees gi ni ko dige woon bu yàgg dirub junniy at yàlla doon na laaj saraxi mala ngir baal doomi aadama seeni bàkkaar loolu mooy kóllëre gu jëkk gi yàlla dénk ay yonentam waaye almasi bi mooy ki naroon a indi ci àddina kóllëre gu bees gi ndaxte moom ci boppam waroon na matal misaalu saraxi mala yépp di toxale noonu kolore gu jëkk gi almasi bi warul woon ñëw ngir dindi waxi yonent yi waaye ngir ñu am ci moom loolo taxoon yonent yàlla si tudde ko jantub njub naka la almasi bi naroona a mele ni jant bi yonent yi dañu mel ni weer wi walla sondeel yuy xuuy ci àddina su lëndëm si waaye almasi bi mooy jant bi fenk ndaxte ñëw na ngir dàq sunu lëndëmu bàkkaar teg nu ci yoonu njub ba faw ana lan ngay doyeeti weer wi wala sondeel yi su jant bi ne fàng almasi bi mooy jantu njub bi dégluleen li beneen yonent yëgle woon ci mbirum almasi bi naroon ñëw mu yàlla sunu boroom fees na ak yërmande ba tax muy wàcce ci nun jant buy fenk ngir leeral ñi toog ci lëndëm takkandeeru dee tiim leen ngir jiite nu ci yoonu jàmm amin kon mbokk yi àggale nanu léegi sunu tukki ci téere kóllëre gu jëkk gi naka noonu ci njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla dinanu dugg ci téere bu neex bi ci topp maanaam ci kóllëre gu bees gi ëmb linjil ci linjil lanuy gis waxu yonent yi ni ñu mate ci almasi bi ni dex yuy tàbbi ci géej su fekkee ne am na dara lu leerul ci sa xel ci njàng mi tey mi na nga nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax bi mu naan waxu yonent yi wér na te war ngeen ko fonk mu ngi mel ni làmp buy leer ci bërëb bu lëndëm ba kera fajar di xar te biddewu njël di feq leeral seeni xol